wax mm-hmm. képp ku nekk Italie xam nañu problème yi ñuy dund si wàllu discrimination si wàllu racisme et cetera jarul sax ñuy dugg parce que képp kuy moodu moodu xam na bu baax. mais discrimination bi moom nekkul sax Italie daanaka kese parce que bëri na ay dëkk yoo xam ne si ni voilà doomu Sénégal yi parfois yenn situation yi ñu ciy jànkonteel métti na tellement. mais bien sûr mais bien sûr loolu euh, c'est une longue histoire quoi affaire de discrimination ba pare mm-hmm. dafa amoon crise économique. oui nga dugg Covid bi dugg. Mhm. kon di euh, italien bi tam xëy na peut-être am amam di gën a wàññeeku. kon di mhm. jox yow yow étranger bi yow la quoi yow yaa tax ma foofu. et puis voilà quoi loolu mooy gën a yokk si affaire bi itam ñun tam suñu nekkin waay. Mhm. itam des fois suñu nekk waay on le ko war a xool quoi. itam boo demee dëkku jàmbur am nga nu ngay nekkee. cest say comportement itam ñun tam suñuy comportement itam war ko xoolaat. loolu dina mën a itam. gën a teg affaire yi si temps quoi ba pare itam état bi dañu mën a assister. ok waaw loolu itam parce que itam bu fekkee ni amul yenn coopération bi nationale bi nii boof tubaab bi mun na ko def lu ko neex. Mhm. bu fekkee amoo benn état bu lay taxaw lu ko neex da ngay xool fii Sénégal benn américain bu fi ñëwee. Mhm. bu ko dalee tak américain nga ko sekkal ah bien sûr waaw parce que ay dëkkam dëkkam dañuy jug ñoom tamit parce que dafa am ay droit ok bravo ñun bitim réew ñu nag est-ce que xaj xaj bi sax peut am na kayit am na doomu sénégalais bu amul kayit kon di ça veut tout dire kon di loolu itam maa ngi ñaan suñu état itam ñu commencé ak toit bi di commencé taper sur la table quoi ay nit kese lañu. ok et puis voilà quoi. ci lu jëm ci wàllum retraités yi nga xam ne seeni ni peut ñu ngi fa ak seen situation yan jéego ngeen ci fas yéene def maanaam plateforme bi nga xam si ni moo di suñu Sunupedia ban jéego la ci mën a fas yéene def pour jàppale leen teg leen ci yeneen condition yu bokkul ak yi nga xam ne si ni ñeneen ñu ngi koy dund. waaw man moom du ma ne foofu Sunupedia euh, du fa nekk mais damay wax ñun sénégalais quoi ñun di faciliter prise en charge médicale yi. Mhm. loolu itam bu nga ko mënee def dina dina baax ñu am victime accident de travail yi ñoo xamee ni dañoo invalide. mooy mhm. ñoo xam ne dañoo am lu leen manqué. waay si si ñu invalide waay. ñu invalide itam. Mhm. itam itam ñu aider pour ñu bëgg ñibbi réew ma parce que itam am na ñu nekk foofu bëgg ñibbi. te duñu mën a ñëw te mënuñu ñibbi loolu tam bu leen gestuwee jox leen benn subvention benn petit aide pour ñu retourner au pays loolu tam dina baax trop quoi mhm. ba pare ñu assister sànq maa ngi ko doon wax assister tam troisième âge bi parce que am na suñuy père ak suñuy grand père yu fa nekk mhm. non ñooñu dañoo war a dellu si quoi si vraiment loolu ñoom itam foog ñu xoolaat leen seen situation dafa métti peut-être peut ñu def fa trente ans doon jaay ma suñu am pension truc machin mënuñu ñibbisi fee itam jeex na. Hmm? mais peut-être eh, MSC am na réalité boobu itam. daa am ñu fa ne ñoo xam ne si ne actuellement daanaka ñu ba pare nekk si yeneen situation. et eh bien sûr yow nga ñëw parce que booy xool Italie moom ay années quatre vingt la la immigration bi noonu imaginez quatre vingt ba léegi yaa ngi fa. Hmm. peut-être léegi yaa ngi soixante ans wala yaa ngi soixante cinq ans soixante dix ans ma soo joxe contribué maanaam ma soo versé. Hmm. xam état da la jox pension. oui nga am nga doon jaay xam nga maanaam doo mën a retourner parce que itam am nga bàyyi nga fi ay njaboot. Mhm. ñooñu itam foog ñu xool leen foog ñu utal leen ay solution bu leen mënee aider. Mhm. ñu am benn pension. ah mais pourquoi pas ñu delloo si leen tamit jàppale leen ba nga xam seen ah. dina mën a si ah, parce que buñ jegee seen ay mbokk seen ay doom ak ñeneen ak ñeneen foofu la gën a yombee yaakaar naa waaw mais bien sûr mais itam les réalité sénégalais ah, boo nekkee bitim réew moom pour nga ak pression sociale bi. ok jalo jalo ñu si wax. Mhm. Euh, pression sociale bi. beneen beneen cas itam am na peut-être yow yaa ngi doon liggéey. Mhm. yaa ngi doon liggéey ba benn jamono. comme je l'ai dit nga toll liggéey fa vingt ans nga amoon sa carte séjour wala permis de séjour mais permis de séjour boobu sa liggéey moo tax ñu la ko daan jox. Mhm. nga dem ba fu nga doon liggéeyee foofu tëj. oui xam nga bu tëjee léegi yow dootoo joxati contre bi. nga ñàkk sa kayit. nga toll benn âge boo xam ni itam mënatoo mënatoo jox ay compte bi un da ngay ñàkk sa kayit. Mhm. ñàkk nga sa liggéey ku ni ñàkk nga revenu. Mhm. ñàkk nga sa kayit am na ñoo xam ne jot na sax jënd kayit mhm. kër. peut-être kër bi dans cinq ans yaa moom kër gi banque bi da koy récupérer et la misère commence. ok alors. beneen point boo xam si ni tamit dañuy faral di gis ñu bëri di ko jooy ñi nga xam ne si ni ñoo nekk au niveau de l'extérieur peut-être parfois dañuy bëgg ñoom tamit di jël ay wàllum oto yi nga xam si dañ ko bëgg a dugal fii mii mais des fois daanaka day si am ñoo xam si ni sax buñ leen taxi yeeg ya nga xam moom la ñu joxe dañuy dem ba mujj dañuy abandonné la nga xam si moom la ñu jëndoon pour dugal ko fii pour ba am ci weccet est-ce que loolu tamit euh, sene euh, maanaam autorité yi ñu ngi leen ci jàppale wala ban situation lañ leen ci doon teg ba jàpp muy am ay jafe-jafe. non bii moom appel rek laay def parce que euh, oto yi huit ans la am bi moom damay ñaan yàlla bu autorité yi may ñu peut-être de douze à quinze ans parce que foofu oto bu am douze ans ba quinze ans oto bu baax la. te loolu sax ci investissement la bokk. parce que oto bi loo koy doyee da nga koy jox sa famille. oui wala nga ñëw def si tax transport. Mhm. c'est de l'investissement. loolu itam dina gën a faciliter ñun tam ñi ñëw di fi indi oto. Mhm. parce que huit ans yi nii c'est un peu dur mais tamay def appel la foofu moom appel laay def. Mhm. Euh, le nouveau gouvernement moom bu ñu mënee yokk oto yi douze à quinze ans loolu moom ñu arranger ko arranger carrément quoi. loolu moom soxla na ko koo xam ne nii sax peut-être chaque année tu indi sa benn oto. te waaw fii oto yi gis nga nu mu mel. mais buy ñëw est-ce que du am ay problème maanaam lu leen ci laaj ba nga xam si ni. Eh, loolu moom je pense que ne ni jara ñuy wax parce que taxi yeeg TVA yeeg yooyu moom dédouanement yi moom dafa excessivement cher léegi. Hmm? un dañ kaa limité kundi pour oto huit ans mooy oto dix quinze millions <laughs> parce que oto oto huit ans moom yooyu yooyu la chiffre bi plus ou moins oto dix millions oto quinze millions deuxième bi ba pare nga ñëw waaw dédouanement bi gën a cher du suñu fa du suñu faveur quoi. léegi ñoom moom motiver wu leen pour ngeen gën a mën a ko motiver quoi. itam ñaan naa yàlla itam un jour itam pourquoi pas ñuy assemblée parce que itam euh, diaspora am na ay chef d' yu fa nekk. Mm-hmm. si wàllu automotive mécanique générale. Mm-hmm. kundi itam ñoom itam war nañu xool bu ñu xoolee rassembler ay quelques ressources humaines yu nekk foofu. Mm-hmm. si wàllu mécanique ñoom xam naa mën na leen jàppale. Mhm. si wàllu euh, mooy maanaam visite technique yi. parce que ku mu ko expérience yaa ngi fa. Mhm. en Europe koñ boo dem am na centre révision. Mhm. te fii à Dakar yaa na un. kundi loolu itam état bu ñu jàppale xool ñu parce que ñun booy xool industrie. industrie Italie moom doo ko si génnee lii di industrie lii di agriculture. foofu mooy point fort Italie. te foofu yaa am na ay sénégalais yu fa nekk ay chef d' entreprise. Mhm. di loolu itam je fais un appel. un appel bi mooy premier bi mooy ñu jéem a yokk âge bi. Mhm. def ko douze à quinze ans. Mhm. deux mooy jéem ñu dimbali si dédouanement bi. trois itam ñu xool perspective sénégalais yu fa nekk si industrie bi pourquoi pas un demain des sénégalais di assembler fii ay oto. waaw te c' possible quoi question gëm ñu rek bu ñu gëmee. ak savoir-faire bu ñu am parce que mm-hmm. Italie moom savoir-faire moo fa am ay diplôme yooyu sax gëmuñu ko ñun savoir-faire la xam compétence. Mm-hmm. expérience parce que boo amee diplôme ba pare foog nga am expérience. Mm-hmm. mais foofu am na ay doomu sénégalais yoo xam ne nii man loolu genre c'est certain que ni ay expertise la ay chef d'entreprise lañu. mais est-ce que tamit si noonu euh, consulat yi ñu ngi leen di jege pour waxtaan ak yéen waaye itam jàppale leen ci yenn yi nga xam ne si ni tamit voilà mooy gën a nekk seen problème pour que ñoom ñu jéem ko résoudre wala même bu dul loolu sax ñu jéem ko euh, voilà euh, trans transférer ñi nga xam ne si ni peut-être mooy ministre bi ak ñeneen ak ñeneen. bon c'est que bëgguma xoj mais. Mhm. ñun pour dix ans xam nga douze ans état existé wala ñun. ku ni c'est très difficile cas boobu. ñun instant yi nii léegi la ñu soog a commencé di sentir que ni am na ay état bu ñuy commencé di ñëw. mais pour di leen bàyyi xel bàyyi xel mais pour l'autre régime pour ba clash ah, existé wul woon. ok ñun dañ doon demal sën. Mhm. waaw loolu moom. je pense que ni tam waaw je fais l'appel à le premier ministre et le président mu mu mu bàyyi xel loolu quoi. Mhm. waaw parce que ñun moom on est orphelin là-bas. ok alors ci wàllum diplôme yi aussi parce que am na ñenn ñoo xam si ni dañuy yóbbu seen i ay doom ñu nekk foofu la ci euh, bitim réew di jàng te itam dañuy gis yenn ci ñi nga xam si ni ñoo fa nekk ñoomit daanaka ci yeneen euh, dëkk la ñuy ne nekkuñu France nekkuñu Angleterre wala yeneen ak yeneen ak yeneen te itam après daanaka reconnaissance bi war a am du fa am est-ce que loolu tamit yéen a ngi ciy def démarche plateforme bi mu ngi ciy jéem a def ay démarche pour que yooyu noonu ay doomu sénégalais yu nekk foofu noonu jàng ñoom ba am seen diplôme ñu reconnaître leen. waaw loolu xam naa ne sûrement solution bi dinañ ko jéem a trouver euh, si assises yi. Mhm. parce que effectivement ñun Italie c'est la même chose. boo mhm. mun boo amee master fii au Sénégal boo demee Italie yàgg euh, gerte ci xottu kayitu gerte caaf la. déet waay mais bien sûr. te du du Italie kese en Japon. bëri mhm. na dëkk États-Unis maanaam daal fii moom euh, boo jàngul en France wala jàngoo au Canada dafa mel ni jàngoo. ñun garaawul ñun nekk nañ benn génération sacrifiée mais ñu itam dañ fa am doom mhm. itam ñu bëgg nañ un jour suñuy doom yi retourné fii mhm. bu fekkee nii itam ñun suñu doom yi bu ñu jàngee am fa am xam-xam mhm. reconnaître seen seen diplôme di dina dina dina dina metti ñoom ñun ñëw fii itam quoi te ñoom war nañ fi ñëw liggéey si ah bien sûr waaw ñoom itam amee nañ fa xam-xam ku ni transfert de compétence yooyu foog foog foog Sénégal servir ko quoi parce que Sénégal chantier la comme ni ma ko waxee rek wàllu médecin wàllu informatique technologie wàllu wàllu agriculture Italie dafa am xarañ c'est pas itam système boo xam ne ni nii bëgguma ko on te va lune mais du nga ko dis mooy système français bi parce que ñu tam se dommage ñun français rek ku jàngul français te France moom il te va lune waaw te sur le terrain doo dis dara te fait savoir faire dafa am quoi mm-hmm. savoir faire bu grave moo fa am kundi loolu moom maa ngi ñaan état bi foog itam coopération boobu si wàllu diplôme yi mm-hmm. comme ça ñu jéem a waxante ak autorité yi que nu ñu mun def que ñun ñu reconnaître suñuy diplôme ah. ñoom itam ñu reconnaître fii seen diplôme parce que ça existe mm-hmm. Camerounais yi ay francophone lañ mm-hmm. Camerounais yi reconnaître nañ leen mm-hmm. question de bonne volonté la waxante ak ñoom voilà ok alors ñu terminer ak benn point mu jëm ci wàllu euh, solution yi nga xam ne si ni fas yéene ngeen ko euh, amal ci assise bi nga xam ne si ni yeneen ko fas yéene amal lu jëm si assistante euh, judiciaire économique ak sociale mm. yan jéego ngeen fas yéene teg pour saa saafara bu baax a baax problème majeur yi nga xam ne si ni doomu sénégalais yi ñu ngi koy dund foofu la ci bitim réew lu ci mel ni jàppalante bi ak yeneen ak yeneen. waaw première chose bi man lu may ñaan mooy ñu promouvoir. benn création cabinet d'avocat pour mhm. assister suñu mbokk prisonniers yu nekk foofu waaw loolu loolu loolu foog ñu bàyyi si xel quoi parce que ñu nekk prisonniers sonn nañu itam soxla nañ loolu benn cabinet boo judiciaire boo xam ne nii mhm. day ñëw wàllu suñu mbokk sénégalais yu nekk si prison yi ba pare ñu jéem leen réinsériser mhm. si société bi waaw loolu buñ ko amee dina baax renforcer ak collaborer euh, interreligieux yi mooy daare yi mhm. association yi état bi itam fa mu jéem a collaborer ak ñoom mhm. parce que ñoom itam ñoo nekkoon si terrain bi gaa euh, mënuñu ñoom ñu def lépp mhm. mais seen jaago essayé woon nañ ko def booy xool association yu bëri ñu fi wàcc liggéey ñu ñooy cotiser pour jéem la yóbbu idem daara yi kon di loolu état bi war na leen jox plus assistance quoi mooy association yu fa nekk beneen bi mooy itam boobu moom <laughs> xam naa ne dina xaw a métti léegi mais itam ñu ngi koy souhaité. bëgg na ministère de la diaspora. Oui. parce que diaspora ministre la soxla. ok diaspora. Mhm. booy xool diaspora du Europe kese. Gambie diaspora la maanaam mu bañ a nekk bon ministre boo xam si dañ ko def comme genre ni ñu ko defee ministre des affaires étrangères et tout mu nekk boo xam diaspora bi uniquement. uniquement ministère de la diaspora loolu. soxla nañ ko. et pourquoi pas des députés yu si pas benn député de la diaspora mais des députés yoo xam ne si ni voilà ñoom tamit dañuy gën a mën a wax problème yi nga xam si ni moom ngeen di jànkonteel. bravo ba pare itam si wàllu consulaire yi. Mhm. si wàllu consulaire c'est très important consul honoraire yi xam consul honoraire yi ay tubaab la ñuy doon. oui ñun euh, defe naa ne ni c'est leer boo xam ne changement la ku la jox nga nàmp. Mhm. nga màgg. oui bëgg nañ bu fekkee consul bi sénégalais la. Mhm. Benvenga mais bu fekkee consul bi italien la dafa dafa war a am vice sénégalais. oui parce que itam si dernier année yi am na ay consul honoraire yoo xam ne nii ñoom intérêt ñoom seen réew. Mhm. lu doon def ba pare